Macky Sall li mu ci def keneen dafa ko ci. deuxièmement ça c'est vrai. waaw deuxièmement négativement nag bu ma nee c'est vrai négativement lay waxee. après yow nga nga jox ma argument. waaw deuxièmement. Uh-huh. tey dama lay jox benn exemple. Uh-huh. zone bi au aux Parcelles Assainies. Uh-huh. mais gouvernement Ablaye président Ablaye Wade ñoo joxe terrain yi. ñoo ko inondé. d'accord du moins xam nga parce que ñoo dem jaay terrain yi te dans des zone inondables. comprendre et puis sooy xool ba xool man. Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko comme ni nga ko bëggee. Mhm. c'est une réalité politique kenn weddu ko. Mhm. mais est-ce que c'était le bon moment. Mhm. Ah? nit ñi inondé. ah inondé nañu. ñii ngi dëkk ci ay euh, ci ay ay ay pajaas yu tooy ñii dëkk ci ay zones yoo nga xam ne nit mënu fa yegg. ñii di togg ay ceeb ci. Euh, di añ ci ci ay xam dans des conditions exécrables mais est-ce que est-ce que vraiment c'était le moment pour ce leader ah mu dem daf euh, du spec du spectacle je veux dire parce que Sonko ñëpp xam nañ ni que c'est un c'est un homme euh, engagé ah fougueux xam nga tu me diras xale la xam nga je peux comprendre mais est-ce que c'était le moment de faire ce ce mini show est-ce que mastawu ah mhm. doyul woon di dem parce soo fa demee te yóbbu woo fa dara à supposer mhm. est-ce que du gën a yokk métit nit ñi parce que ñoom suñ ko gisee dañu am yaakaar ci moom mais quand mm tu mhm. viens les mains vides aussi mm -hmm. ça sert à quoi waaw ouais, d'accord léegi dama lay répondre point par point parce que da de Senghor à Macky Sall. Mhm. Macky Sall li mu def ci inondation yi benn mhm. président def ko effectivement. Mhm. parce que gestion bi bu mu def ci inondation yi c' est catastrophique effectivement kenn musu ko ca def. mais et, et, et, sénégalais yi dañu j'ai comme l'impression que oui moom laa la si si ce que je de faire c'est comme si sénégalais yi franchement dañuy fàtte démb xam nga Paco boo toogee nii ci gouvernement Abdoulaye Wade lañ joxee la ñu joxee zone boobu SNHLM moo ko joxee Macky Sall mu ngi woon ci gouvernement Abdoulaye Wade boobu bañ koy joxe. Macky Sall dafa def juróom-ñetti at ak Abdoulaye Wade. juróom-ñett laa wax. premier ministre du Sénégal. président de l' assemblée nationale. ministre de l' intérieur. ministre de l' énergie des mines xaw ma ñaata ministre de xaw ma lan. il a occupé autant de responsabilités. est-ce que domaine de compétence am la waaw mais mais justement mais quand boo waxee ne. ci jamonoy Abdoulaye Wade la woon te Macky Sall nekkoon même le premier ministre du Sénégal ki nga xam ne il est chargé d'exécuter la politique du président de la République mais Macky Sall est à 99 pour cent comptable de ce que Abdoulaye Wade nous a laissé loolu kenn mënu ko bañ sur le plan politique et en termes de gestion sur le plan politique il a fait 19 ans avec Abdoulaye Wade 11 mm. ans dans l'opposition 8 ans au gouvernement donc Macky Sall ans la deful ak Abdoulaye Wade après mu jël réew donc kooku mënuñu ko génne ci li nga xam ni Abdoulaye bàyyi na ko fa muy lu baax muy lu bon. Hmm. beneen affaire moo tax bëgguma ñu absoudre ko parce que sénégalais dañu am amnésique dañu gaaw a fàtte. moi je te dis personnellement en 2012 di ñëpp di daw di riir di wuti Macky Sall je fais partie des rares personnes même dans mon école les étudiants su ma leen waxee ne ku ngeen di voté ñu ne Macky ma jox leen argument dana non monsieur yow da ngay neloo toogal foofu. je fais partie des rares Sénégalais à ne pas avoir voté pour lui en 2012. ok la première mooy Macky en tant que euh, première ministre moo ñëw ci ay urne voté cent pièces d'identité forcé le vote voté cent pièces d'identité un premier ministre du Sénégal